Chiara pour parmi nous. Euh, on a des invités ce matin. Voilà, on a des invités, mais avant de les introduire sur le plateau, comme je disais, euh, j'ai décidé de parler aujourd'hui quand même euh, de la communauté américaine qui est très mhm. nombreuse au Sénégal. Et souvent, ils arrivent des échanges universitaires. Donc aujourd'hui, on va présenter euh, un programme de mhm. Princeton University euh, qui s'appelle Bridge Year Donc mhm. euh, des étudiantes qui viennent pour neuf mois. Ils vivent dans des familles sénégalaises, dans, dans un cadre d'immersion dans la société et la culture sénégalaise, même temps, ils font les volontaires dans des organismes euh, internationaux, des mhm. ONG qui sont présents sur le territoire. Donc, euh, j'ai aimé parler de cette thématique parce que euh, il y a un ensemble de euh, concepts qui me sont chers, comme la coopération, l'éducation, mmh. l'engagement et surtout mmh. le thème de la langue, qui est fondamental aujourd'hui, je pense, si on parle de migration. Mais comme je te parlais de surprises, je vais lancer les reportages pour faire voir au public de quoi je parle. bismillah day oh, oh, def. Oh, ah, na nga def. na nga def. ça va. nga def. si jàmm. maa ngi si jàmm. bismillah. ah xarit yaa ngi leen. waaw. maaleykum salaam. xam nga euh, samay xarit lañ ñoo ñooy liggéey waaye comme ñoom dañu gane si def leen ay xarit def leen ay mbokk kon kii moo tudd Aida Mané moom sama naataangoo la kii euh, Abdou Karim la tudd euh, moom de ci ndongo yi la bokk Moustapha moom xam nga ko moom lañ seet si ak euh, Koumba Sarr moom ci ndongo yi la bokk ak Fatima kii sama doom la nag waaw kii Ibrahima Thiaw Ibou Thiaw lañ koy di ñu ñu gën si ñu ñu yaatal leen ñu dëkk ci biir kër yi ñu def leen nag moo tax nga gis ku nekk dafa am turu wolof am sant parce que ku nekk dafa dëkk ci kër léegi nag xam naa damay bàyyi sama naataango ay damaa ne mu continuer ak yow. Ah, alors man tamit bu ma jógee fi ñëw Sénégal man étudiant la woon 2009 et puis dama leen siiwaat mais. fii ci senegal comme étudiant daa nga jàng ñu bëri da nga gëstu nga dëkk ci waa famille nga am xarit yu sénégalais nga liggéey ak sénégalais nga bokk ci liggéey bi nga bokk ci arme bi ci sunu yaakaar alors moo tax da nga li nga jàng wala ko jàng ci salle de moo tax man ak Babacar ñu indi étudiants yi fii pour jàng àdduna bi parce que ci salle de classe bi mu nga jàng xam-xam mu nga jàng information mais du jàng lu lu am ci xool u sénégalais yi lu am ci xool u waa olof waa séeréer waa pulaar moo tax dañu bëgg nekk fii jàkkar ay xam euh, dund fii Dakar mais tamit ñu ngi dem ci région yi mu ngi dem pulaar euh, ci saint ci dëkk ci euh, Thiès ci région Sine xam àdduna fii ci Sénégal. mu ngi jàngoon ak tuuti rek de Sénégal. waaw ma ngi ma ngi demoon na fii eh, ñaw ñawoon na fii ci Sénégal wante maa ngi dama surpris surpris woon <laughs> trop de la culture sénégalaise la table sénégalaise ah, eh, ñëpp bari ñu ngi ñu ngi ak jàmm ñu super. kon Pape ñu ngi lay nuyu di ñaan kenn dal jàmm ñu man ak sama mbokki américain yi euh, nekk fii ci Yoff ah, xam naa ba fan yi seen liggéey rafet naa ñu ñaan seetaan et surtout ñu ngi jàng ci li kon ñu ngi leen di sant bu baax. Estaba ya, ¿verdad? ah Fatou waaw Fatou naa def. maa ngi fi rek Kiara. est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe avec Moustapha. incroyable Moustapha dafa baax. Fatou sama xol dafa sedd. waaw taranga taranga u sa sunu waa kër dafa baax dafa baax bu baax baax. merci jërëjëf mo jërëjëf. kontaan naa waaw kontaan naa ils sont parmi nous euh, nga demoon seeti donc je euh, prends mes affaires ah et je m'en parce que je suis la seule étrangère qui ne parle pas wolof malheureusement <laughs> non mais maintenant j'ai que je vais aller étudier comme euh, voilà. maintenant on va expliquer le programme. ñoom ñëpp ñëw kan ak kan la yow la kan Fatou Mbaye. déedéet maa yow yaay kan. non mhm. programme. man ak Babacar oh, ñu leen encadré. donc Aïda Mané la ak kan Aïda Mané. Aminata Sall. Aminata. Sall <laughs> de sa yow sénégalaise nga. <laughs> xam nga Amérique yenn saa yi boo fa wàccee da nga gis ko ko da américain mun sa papa. ah wala mun na sa benn mbokk c'est vrai ah. attention après on a Moustapha parce que il faut dire que quand même je vais remercier Moustapha parce que tout est parti grâce à Moustapha. lui parce que on s'est connu à Yoff parce que habite à Yoff dans une famille sénégalaise. ça hmm. partie du programme après ils vont nous expliquer. et donc c'est parce que c'est bien aussi pour les Sénégalais de voir euh, aussi le programme mhm. qu'il y a avec des autres universités étrangères mhm. et comment les gens <laughs> essaient d'utiliser cette méthodologie, de l'immersion, mm -hmm. Euh, qui permet vraiment de s'intégrer d'une façon totale à la mhm. culture sénégalaise. Surtout parce que, après peut-être Aïda, elle va nous expliquer, dans les programmes, une partie très importante, c'est l'apprentissage de la langue. Dans, ce cas-là, l'apprentissage la langue là depuis 4 mois et vous avez vu. Ah ouais. quand même il se débrouille pas mal. Euh, il se débrouille pas mal parce Donc, que Sénégal <laughs> très bien quoi. <laughs> Euh, Aïda je sais pas si tu veux un peu expliquer au public euh, de quoi s'agit le Bridge Year Programme. alors gis ngeen tuuti rek ci reportage bi. waaw suñu programme dafa. dafa gis solo u nekk waaw dafa dafa gis solo u nekk ci waa kër sénégalais mhm. intégré parce que deful dara su fekkee nga ñëw Sénégal nga seeti région bi ci bus climatisé mhm. ak waa américain yi rek mhm. ak benn guide yow da am da gis golo yi wala da nga gis tool yi. mais du xam. doo comprendre parce que Sénégal pour man Sénégal réewu Sénégal. mooy dafa nekk ci tool yi tamit mais vraiment ci nit la parce que Sénégal da Sénégal amul daara su fekkee am amul sénégalais. dëgg la dëgg alors su fekkee mën nga waxtaan ak nit yi ci làkkam mhm. ci olof wala séeréer wala pulaar. Mhm. mën nga làkk mën nga làkk làkk wu xool. dëgg la parce que même su fekkee nga waxtaan ci français. waaw mën nga échanger information. mais du xam esprit. dëgg la alors moo gën. au moins su fekkee ngeen ñëw Sénégal. deful même su fekkee nga def benn semaine rek moo gën a nga jàng salutation ci olof wala ci séeréer wala ci mandinka soninke loo mën baax na. ak sunu étudiants yi. ñu Babacar dafa lay dafa lay jàngale olof bu baax. bu xóot pour mën nañu dem ci région yi. mën nañu dem ci biiru kër yi. du ñu ñu ngi gaañ. mais tamit kii mooy doom u faat. ndeysaan vraiment que même su fekkee. moom mu ngi fii depuis 4 mois rek mais vraiment fii dafa am yaay dafa am papa dafa am raak alors ah, dafa am famille ndeysaan donc jàng bu xóot lañ leen koy jàngalee waaw waaw dafay xóot bu baax ndeysaan incha allah dina oh. dina ñëw alors suñu programme pareegul fii ak 5 euh, mois moo ci des dinañ ñibbi famille uh-huh. alors Bafame dinañu làkk olof bu baax a baax a baax. ndeysaan. et Aïda aussi une une partie importante euh, du programme c'est euh, au-delà de la langue que je pense que c'est vraiment une euh, une idée excellente mais c'est aussi euh, de faire partie de la société les étudiantes qui viennent ici parce qu'ils prennent partie ils travaillent comme mm -hmm. volontaires dans des associations dans des ONG qui s'occupent du développement hein, du pays donc euh, à niveau de la formation peut-être il y a des étudiantes qui donnent des cours cours euh, d'anglais. Mmh. des autres sont dans des ONG qui s'occupent euh, d'économie ou je ne mhm. sais pas. Donc vraiment, ça aussi, je pense que c est, c est, ça fait partie du programme. Il faut dire que le programme, c'est pas seulement au Sénégal parce que je j'ai visité leur site internet. Après, je pense qu'Aïda peut donner les références pour les gens qui ont envie de regarder. Mais c'est dans plusieurs pays, le Brésil, la Chine, l'Inde, le Sénégal et le Pérou. Est-ce que c'est est oui. c'est un programme euh, qui qui a à voir avec la coopération et l'engagement ñu wax nag. voilà et euh, euh, pour les gens qui veulent ah. regarder ah. les ou la page Facebook oui on a une page Facebook si vous cherchez Princeton p r c e n en anglais year comme année vous allez trouver c'est un page Facebook qui rassemble tous les programmes au monde on a cinq programme. Et puis aussi, on a une page Instagram, aussi Princeton Bridger. Et puis, euh, on a euh, une page euh, internet, un site web, qui est aussi, vous pouvez entrer dans Google, c'est plus facile, euh, Princeton Bridger. Alors. suñu bëggee dem États-Unis def même programme que yéen est-ce que loolu mun na nekk ñoom tamit dugg ci benn famille américaine mm-hmm. intégrée jàng langue bi. wala culture bi aussi. loolu dina ma neex trop. mais malheureusement. léegi dañuy rey du amul opportunité ci suñu programme léegi ne mais incha allah ab bi di ñëw dina am. yéen a ngi parce que dina fi neex yow mën nga ñëw sama kër. xanaa waaw man damay dem. waaw da ngay dem <laughs> tu sais ñoom Minnesota dafa am neige bu bëri dafa xaw a set alors nga indi sa pull pull yu bëri. bijou ah, ça c'était ça c'était une des premières choses lors qu'on a eu un échange avec euh, Moustapha on parlait justement de ça parce que mm-hmm. il m'a dit dans vraiment dans la vision dans la vision globale du programme il y a à faire euh, de telle sorte qu'il y a un échange donc euh, entre les étudiantes sénégalais et les étudiantes américaines mm. pour, pour qu'ils puissent faire la même chose parce que vraiment. Et ça, c'était une chose aussi qu'on voulait faire avec des universités italiennes. On a réussi, je suis réussi à le faire avec un groupe d'Italiens de l'université de Trieste. Mmh. Donc de le faire venir ici parce que je crois que c'est euh, c'est la seule façon pour vraiment, vraiment connaître la culture. Mm. Connaître, voilà. Donc je peux poser peut-être une dernière question aux étudiantes qui sont là. Comment ça se passe cette expérience Qu'est-ce que vous avez appris au Sénégal qui vous allez amener avec vous euh, aux États-Unis Donc voilà, qu'est-ce que ça vous a resté marqué du Sénégal Donc, euh, pour moi, euh, moi, je pense que le chaleur de, des personnes ici, yow xanaa déggoo wolof. waaw dégg na tuuti mais. waaw <laughs> wax ñu ko wax ñu ko ci wolof ñu comprendre sa kanam gi dafa sénégalais trop. boo seetee ba ci biir yow waa ngaay mexe nga say mbokk ngi ngaay yow doo américaine. Ah, sénégalaise dina jëm dina jëm. donc jàng na teranga fii ci Sénégal. moo tax nit nit ñu nekk fii. ñëpp daan yooyu baax. ndeysaan. et c'est c'est ça que je veux je veux prendre avec moi que je vais venir aux États-Unis. ndeysaan. Um, parce qu'aux États-Unis c'est pas la même chose. dëgg la donc tu vas tu vas demander si on peut être une Sénégalaise qui vient aux États-Unis être dans la famille et moi je pense que oui c'est une chose que peut-être ça peut ça peut marcher avec mm-hmm. quelques familles. Ça mais ce n'est pas le même que ici. Mm-hmm. Ce n'est pas juste sama waa kër wala waa këram qui a dit que vous êtes vraiment notre famille c'est comme tous le quartier si je je dis salaamaaleykum maaleykum salaam à quelques personnes. Mhm. il va dire oh parce mais du loolu moo am États-Unis loolu amul lu am uh-uh. fii nii amul États-Unis uh-uh. oh là là ndeysaan oui. amul dara foofu. <laughs> ah xasal kay yow yàlla na sax. Moustapha Moustapha il faut que tu dises dans l'émission tu m'as appris euh, les difficultés euh, qu'il a eu lors de la langue tu m'as dit qu'il y a c'est lequel les mots que wow. tu m'as dit il y a des mots spécifiques il faut dire les mots là du manger. waaw c'est très spécifique comme ndak ndak. donc ah donc waaw waaw ak ak ceeb bi. ceeb voilà voilà il y a beaucoup de des homonymes tamit comme. weer weer weer. ah weer ok weer weer. wala ñëw xeer xeer. dëgg la. ñëw ñëw. c'est pas la peine bokkul définition bi daal. wala wala jàmm wala jàmm. waaw jàmm ak jom waaw. ak jàmm mais ay synonyme la mais. waaw donc c'est waaw mhm. dafa jafe. mais en tout cas vraiment. c'est vrai que wolof dafa bëri moo yu mel noonu. aujourd'hui vraiment on <laughs> a montré franchement on a montré aujourd'hui sur le plateau. que les différences euh, c'est quelque chose euh, quand même de relatif. Mhm. donc. Euh, Euh, S'il y a cet esprit vraiment d'apprentissage, d'ouverture, euh, on n'a plus peur. On n'a euh, de ce qui est différent de nous. Mm -hmm. Et mhm. ça, c'est la preuve. Parce que euh, voilà, on a des étudiantes américaines qui sont très bien intégrées. Mhm. Euh, je suis italienne, vous êtes sénégalais. Donc voilà, dans une période historique où ils cherchent de mettre l'accent sur les différences d'une façon négative, nous, sur Yaoulen, à la TFM, on met l'accent sur les positifs. Donc voilà, nous, on se bat dans ce sens. Ah Terrorisme, positif. voilà terrorisme positif ñu ngi leen di gërëm bu baax ku nekk di nga wax benn message ci wolof. dama leen sant seen sant ak seen tur. waaw jërë ngeen jëf trop Sénégal fépp neex na trop dañu ñu jox yu bëri. waaw yu lekk yu unaan teranga suñu tur olof ala moo tax dañu am yu bëri. Mhm. incha allah mën naa leen joxe yu bëri tamit. Mhm. mën naa leen def échange. ñu ngi ñëw ñu dëggastu mhm. incha allah même su fekkee mënuñu ñem dem ba États-Unis mhm. mën nañu échanger mën nañu waxtaan mhm. ñun ñëpp ñu jàng dara ci àdduna bi attend ñun ñëpp suñuy xool dañu sedd trop. dañu am clim yu bëri. dañu am neige. ay neige alors merci beaucoup. ok na keneen wax waaw. ay ca wax leen waxal yow. Euh, ban message ngay wax booy pour pour mu jeex. en hmm, wolof. waaw ci wolof waaw. <laughs> na jeexee man kontaan naa sama waa kër dafa baax waa kër am ñëpp étudiants yi dañuy baax. ndeysaan hmm. yow yaa ci tudd nan sa tur wolof nan la. Aminata Sall. sa yaay nu mu tudd fi Maguette Thiaw sa papa. Elimane Sall. sa rakk yi. amuma rakk man may caat amuloo <laughs> <laughs> ban woy nga gën a bëgg ci wayu sénégalais yi ban ban way waykat nga gën a bëgg. Ah, ah, <laughs> ban wayu Carlou D nga gën a bëgg ban wayam ban ci. Um, Sam Fall. Sam Fall ok ah Sam <laughs> yow nag Moustapha ban way nga gën a bëgg. waaw man euh, eh, xam nga ataaya. waaw uh, ah. uh, dafa baax lu ci yëpp maa ak sama waa kër. waaw eh, sa papa nu mu tudd fii. waaw ah, Daouda. sa yaay. am nga ay rak. ak faatu uh, Fatou. ak Fatou. Fatou sa rakk yi nu ñu tudd. Hmm? Eh, sa rakk yi. Oh, am na Madjiguène. Khadiguène <laughs> Doudou Diagne et eh, Sini Diagne waaw man taw yaay taw. <laughs> ban way xale yi bu bari. waaw xale yi dañu bëri fii mooy Sénégal fii du Amérique fii dañuy jur juree rek <laughs> sarak yi dañu tudd ñaata daka nga am kan ak kan kan la sarak yi. fii waaw sarak yi nekk fii. ma jigéen <laughs> eh, ak Xadige ak Dudu Kan ak Sini Dian. Euh, mën nga fecc Sénégal fecc Sénégal mën nga danser. Merci Chiara pour parmi nous. Merci. Ça a été un plaisir et pour moi vraiment vraiment l'expérience à la TFM ça a été une grande école de vie et j'espère que ça va durer encore. Ça va continuer Inch'Allah. Merci beaucoup Chiara pour parmi nous. On se retrouve juste après cette page de pub.